Salut les amis de Sport TV, merci encore Gaël de la confiance renouvelée, merci de des likes, merci de des abonnés, merci également Gaël. Dis-moi ici les commentaires, un plaisir renouvelé chaque fois de partager des informations inbox sénégalais, fait pour les maintenir 14 régions du Sénégal. Rokhrouha di gorgora di leen di jaajëfal ñi nek également ci l'hôpital hôpital ci kër yi février, feebar. Yàlla suñu borom fokk seen bopp ñu wér ak jàmm ñi ci yi aussi erreur judiciaire gi ñi lañu deful moo leen fa yóbbu suñu borom génne leen fa delluwaat leen seen njaboot ñi dëddu àdduna suñu borom xal leen daa jëne fi daw si Guy ñu on avance ensemble dans la machine de Sport TV à l'actualité actualité en continu yi actualité ñu fas yéene waxtaanee li nga xam ne nag donc waa CAF mi daal di génn lii di programme Coupe d'Afrique bi suñu gaynde yi nag taxawaay gi ci war am ak planning et tout lépp ñu fas yéene ko leeral wasaare ko laata boobu nag ñu daal li nga xam ne ne gars yi mooy suñu gaynde yu handball yi handballeuse yi ah, ñoom gars yi gannaaw bi nga xam ne nag ndoxteelu jongante bi waa Cameroun ñoo leen dominé woon mais suñu gaynde yi ñoom ñoo daal di match bi félicitations à Ella wane rek ne également ah, fi mu avant goût ci CAN bi on l'espère diggante Sénégal ak euh, Cameroun institut match bi nga xam ne gars ci Belgique la am championnat deuxième division gars yi ah <laughs> gars yi arbitre ah. <laughs> gars arbitre bi lu li nga xam moy donc 8 cartons rouges la joxe hein gars yi onze cartons jaunes yo xam nak nag ñett yi ci banc bi la ko joxe match bi xam ne gars yi ah, ci deuxième division Belgique la am diggante <laughs> ñaari équipe yi pendant ce temps nag Ansu Diadio nga xam nak mom récemment rek lañ ko dakk du côté du Casa Sport euh, Casa Sport plutôt fini ne nii mooy daal di ñëw nekk li nga xam ne donc entraîneur bu Guédiawaye football club lool daal lañu ñu daal di euh, jàpp euh, jamono jii nii ci côté mercato sénégalais yi pendant ce nak nag kii di donc Inzaghi mom ah, Simone Inzaghi le petit frère de Filippo Inzaghi moom nag nee na fi ne nii dafa bëgg euh, des lu yàgg yàgg yàgg ci banc Inter de Milan entraîneur boo xam nag gars yi critiqué woon nañ ko fi daaw yéen te ko mais ren mu ngi def lu bëri bëri bëri ak waa Inter de Milan même daaw commencé woon na ko Benjamin Pavard nag gars yi ah ki nga xam mooy Inzaghi annoncé na ne. ci semaine bi ñu jëm nii donc ci lay fas yéene incha allah rabi reprendra jouer ak équipe bi sera opérationnel gannaaw bi mu amee ab gaaju gaaju José Mourinho xam ngeen ne temps yi arbitre dañ ko singiri du côté de euh, la Syrie arbitre dañ ko tek ba gët fi ne ndax mom day wax rek. <laughs> dem nak bañ len euh, ba match bi jeexee mënut a woon wax notamment Dybala Dybala gaño li dal le poste mom <laughs> li <laughs> dal la posé waxut mais mom lim def comme wax pendant ce temps ki ngeen di gis nii ah, donc euh, Monaco l'homme le plus riche au monde en 2020 fi ni nak mom dal mo bok ci candidat pour jënd Atlético Madrid parce que Madrid euh, gars yi dañ ko bëgg jaay jamono ji dal loolu dal fi ni moo rousé du côté de l'Espagne ki nag di euh, donc euh, Pierre-Emerick Aubameyang moom ba mu dugalee dafa daal def célébration au Black Panther ndax nee na dafa dem ci hôpital yu nekk foofu noonu ca France am benn ndaw bu feebar ne ko li ma bëgg daal mooy defal nga defal ma célébration euh, Black Panther Bon, tax mu daal di koy def ngi daal di koy delloo njukkal ki di El Neni le joueur égyptien d'Arsenal fi ne nii nag ah waa Arabie Saoudite Dans am na ñaari club yu nekk foofu yoo xam dañ ko bëgg a recruter waaju football contre Sénégal ouais, ah, du sonaloon sincèrement ñu bari duñ gis li mu doon football mais waji sonal sonaloon nañu au milieu du terrain pendant ce temps Kai mom la daal tam mu nek joueur du mois du côté d'arsenal fans du Arsenal ñoko ko nominé le joueur allemand bi nga xamné gay hein, il est devenu polyvalent des joueurs attaquant joueur ailier des joueurs arrière latéral ndax Nagelsmann loolu la ko joué ak wa national Mannschaft ki nga xamné également mooy Akanji mom lañ jox donc joueur suisse de l'année mi ngi non hein, sport award bi mi ngi moko moo gagner daal gagné bi nga xamné nak nag jël na li nga xamné moy lepp luy trophée ak championnat ak ki nga xamné donc wa Manchester. Euh, City pendant ce temps wa Chelsea nak seen rêve moy recruter ki nga xam moy donc le phénomène de la Serie A Victor phénoménal euh, spécimen Osimhen mi nga xam dal daal gars yi fi ni dal wa Chelsea mom lañ bëgg def et que lool dal euh, moy sen priorité pour renforcer leur pointe de l'attaque Victor Osimhen mi nga xam nak wa Napoli dañ ko baye mu daal di dem ca euh, Marrakech gannaaw bi nga xam ne nag gars yi dañu war a jouer match Ligue des Champions ëllëg waaye loolu nag day firnde rek ne li ma leen ko doon junjee ba léegi moom moo nar a gagné nga xam ne ballon d'or africain bi mais loolu dinañ si dellu ci waat incha allah ci kanama kanam pendant ce nag ñi nga xam ne euh, kii di ñu euh, tuddati Raphaël Varane ak également William Saliba ñoom ñaar nag noonu ñoo nekk option B. ak C bu waa Bayern Munich bu fekkene ne Araujo du ñëw euh, Varane ak Saliba daal fi ne nii ñoom daal bëgg ñew jël ci kenn ci ñom pour renforcer euh, défensivement ki nga xamne aussi nak moy donc yene kay bi di sport du côté de l'Espagne Espagne nee na fi ne nii nag Manchester United dañoo bëgg proposer échange Jadon Sancho ak ki nga donc Rafinha. pour ku nek jaar ni ki dem Barça ki dem du côté donc de Manchester United yéen nak euh, ban gis-gis ngeen ci am notamment supporteru Barcelone ki nak bi akam bi aussi Manchester United mom mom la teg gëtam pour renforcer euh, maanaam ak andi sax ki nga xam Openda le joueur donc euh, euh, du du RB Leipzig moom daal lañ teg gët sama nit pour dal di renforcer sen attaque Manchester United foofu dal joxogn li nga xam mooy mom ki nak di Liverpool pour la première fois de la saison mu dal di nek premier au classement ah ki nga xam moy City mo ëpp lim ko nek cette fois nek nako ci début de saison bi ni top ci Arsenal trois fois Tottenham trois fois Liverpool ben yoon Newcastle ben yoon Brighton aussi ben yoon également le Sénégal champion d'Afrique en titre. war a dem ca fa nga mooy donc ci Côte d'Ivoire ngi défendre titre am ci lu mel nag ñi nga xam ne donc waa CAF daal nañu birndeel euh, firndeel aussi ay tamit jëmal li nga xam ne mooy donc programme bi planning match yi nan la nara a donc nag ngi gis ni Sénégal mon mi ngi groupe C mon ak Cameroun Guinée et euh, Guinée-Bissau plutôt ak ñi donc Gambie Sénégal dernier match nak mon Gambie euh, moo ko Guinée lay match aussi derby la nar don, mais là tabou nak premier match Sénégal gars ñu le 15 janvier le 15 janvier inshallah rabbi, là lañ ko jàpp ah donc on nar a nekk ay très 13 heures non donc Sénégal Gambie mon premier match bi donc duel également de voisins, voisins, hein, donc Gambie ñoom ñooy gémminu Sénégal parce que gis ngeen Sénégal moom. Bop gaynde bi la daal euh, ah. donc également le 18 janvier Sénégal joue à Cameroun ah. donc au deuxième match bi déjà day ben benn derby ndax premier match bi ku nekk dina xam da nga gagné wala da nga nul wala da nga deuxième match bi rek a finale final avant l'heure muy le 18 janvier incha allah le jeudi lay tombé là. donc boobu ay 16h lay am 23 euh, janvier mooy dernier match bi mardi lay Sénégal Cameroun qui euh, Gambie Cameroun le donne, Sénégal à Guinée 16h euh, lay donne, 18h heure française match bon également dina nar euh, comme ni ko gars yi di waxee dina nar a jolli gars yi j'ai, c'est information ñu toujours un plaisir de vous servir nan ngeen gisee li nga groupe Sénégal pour yéen kan moo ciy favori pour doon génne ñaar Nyan, nga qualifié pour le Sénégal ci yéen ñan lay doon et également l'ingénieur donc euh, l'idée di ballon d'or africain c'est un pronostic avant l'heure Vous êtes là, vous êtes abonné En avançant ensemble dans la magie de eSport TV Sous baaxee ci yéen su mënee gars